ñu ngi ci diine de collecte de fond bi nga xamante ni Bou Kounta ak stafam ñoo ko organisé macha allah guddi gi daal di ala me loolu waaye nag nee naa leen fii ma taxaw ku nekk dina fi ñëw waaye ku nekk dinaa ko tàllal sama micro ma ànd ceeg monsieur Balde moom nag moom moo représenté APIX donc euh, monsieur Balde ñu ngi lay nuyu di la ziar di kontaan bu baax a baax ci ni nga ñu fekk see fii nii si plateau bi. merci madame donc je euh, suis Samba Baldé je suis représenter le directeur général de PIX, le docteur Abdoulaye Baldé Je suis venu mais malheureusement je suis à l'extérieur du pays Je suis en délégation bu TAC, mais il faut comprendre que nous ñaari en tant que nous ban en tant que représentant de l'APIX mais également en tant que représentant comme Nima directeur de mais président de l'union centriste du Sénégal UCS parce que de ci ñun la bok, APIX la bok, mais ci ñun parti la responsable parce que je suis vice président président jeunesse parti Je suis aussi Rakou, président Abdoulaye Baldé donc c'est normal que bu amé initiative bu nous ñu ñew fekkee ko Abdoulaye yónnee ñu ñu ñëw vraiment non seulement fekke ki bi mais ñew jappalé ko japp ci initiative bi parce que initiative bu am solo la lu melni formation ay jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat xam nga vous waxuma la Thiès rek mais Sénégal yeb moko soxla parce que fu mu nekk une problématique jeunesse mom dafa soxla au-delà de la politique mais politique nation bi en tout cas euh, ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci seen i présence ak euh, seen appui ak délégation bi nga xamante ni délégation bu mag la gis nañu ni ngeen ñëwee ñu ngi leen ci remercier bu baax waaye li wax rek sotti seeg def si parce que Bou Kounta ci yéen la bokk donc yéen fi ngeen ñëw nii da ngeen fee war a ñëw xanaa rek nga gën encourager pour. gën ko ñaaxaat gën a wax tamit euh, nañ ko gën a jàppale bu baax a baax ba mu réussir li mu bëgg a def. moom kay comme ni ma la ko waxee rek dinañ ko lii wane na ni dañu ñëw pour jàppale ko te suñu patron bi aussi dina ko jàppale. xam nga ku wax APIX rek APIX day gunge initiative bu mel nii surtout ci wàllu formation donc loolu amul benn sikk sàkk dinañ ko jàppale parce que suñu ko jàppale comme ni ma ko waxee rek. doomu réew mi la ñu jàppale suñu bopp la ñu jàppale parce ndaw moom euh, ci réew développement réew lu mel ni entrepreneuriat bu ko jàppale rek réew mi nga jàppale sa bopp nga jàppale incha allahu rabbi président Abdoulaye Baldé comme ni ko waxee dina ko jàppale te su ma la ko waxee loolu rek nga ma gëm parce que fu mu nekk loolu moo fa nekk donc pour ñun la incha allahu rabbi dinañ ko jàppale merci beaucoup monsieur Baldé ñu ngi lay remercier bu baax euh, di bàyyi nga rejoindre sa table di wax nag euh, bonne soirée. jërëjëf merci beaucoup ak ah, bu pare ma. rek plateau bi xam nga sama plateau la te yàlla dogal na ni fii maa fi chef da ngay rek nga ñu waxtaanee ko rek ci njëkk rek. waaw ci njëkk. domaine bu moom lañ bàyyi ak moom. ñun doo ñëw suñu brigade di ñu ko di ñu fontoo ñu nang nga ñew suñu brigade di ñu forto kon bu ñëwee sa place la jox tëm ñu armée non la démé da ngay yoru rek rek la rek rek la rek maa gi lay nuyu. jàllal ziar naka bu sama xarit bi ci loone. maa ngi ni rek. contane nañu bu baaxa baax euh, ci euh, li ngeen organiser ni muy dîner de collecte de fonds ma sha allah euh ñu gis na bo ba tey yaa nekk ci organisation bi di dem di dik naka nga ñu mëna wax ci loolu. parce que loolu vraiment li neena du ñun dong ñoko wara def li da valable pour ñep kep ku sénégalais wala ngay acteur culturel li valable la ci yow parce que dimbali jeune théâtre kat bi aajawul mécanicien xalé yi jang nañ am métier am am am am am ay këyit té amuñu fuñu liggéey amul sax leena dañ leen di jàppale leen parce que problème bi moy bo amé métier te amoo foo ko ba tay la non tax ñu organiser jappalé xalé yi mais est-ce que c'était facile organisation bi. non xam nga li yombul yow yaa ñu gën a xam li yombul yow sa bopp xam na li yombul mais def nañ suñu kéem talaay gàttal ba bañ kenn bañ jeexeet ci li ñuy def waaw. accès ci autorité yi. am nañ ñu ñu ñu ko yombalal am na ñoo xamante ne jot ci ñoom dafa xaw a jafe waaw ñoom war nañoo bàyyi xel ci loolu parce que lii ñuy def nii du pour nit man bu ma doon wut lu ma neex. damay organiser def 20 ans de carrière wala 25 ans de carrière pour def ko sama poche mais li pour gën ndaw yi la ñepp wala ci sen pour ñu ñëw comprendre voilà. en tout cas kontaan nañu bu baax baax mais est ce que japp nañ ci aussi nañ ci war jappé jàppee El Hadj Ndiop Sow ngi lay nuyuwaat bu baax. est ce que japp nañ ci nañ ci wara jappé li ngeen ci doon sen am ñu ci japp ñoo xamantene ku ci melni cadeau Glace na ci euh, moy lay Mbaw. Euh, ak ak nu si tudd ministre Cheikh Omar Anne moom bokk na ci. DG Ablaye Dieng. voilà DG Ablaye Dieng ñooñu jàpp nañ na ñu jàpp parce que ñun du jàpp bee ñu intéressé même boo yorul xelal comprendre parce que am na lu la yàlla may ñëwal nañu lii la waaw. dëgg la parce que ak li ngeen di woote ak li da ngeen di soxla ku leen jàppale ci am-am waaye tamit da di soxla di jàppale ci ay conseil maanaam ci xel. waaw bien sûr dañuy soxla ku ñu jàppale jox ñu ku ñu jàppale ci conseil formation bi ñuy def ku ci nekk am nga ne am nañ domaine boo xamante ni mën nañ cee dimbale xale yi nañu indi du xaalis bi ñëw wi la waaw eh, message ngay lancé. bon li may lancé mooy lii ñu def nii ñun ñëpp la war du président bi fi toog rek moom moo war a jàppale xale yi mënu ko da ngay defal ñenn ñi ñenn ñi defal ñenn ñi ñun nombre bi ñu jël. keneen ku ci nekk bu jëloon nombre bi léegi semence jeex ku ci bu tibboon comme ni ñu tibbee keneen tibb keneen tibb semence day jeex la quoi kontaan naa bu laajaat dégg nga. en waa déggoo ma ne la ci rek da ngay def ndànk rek maa ngi lay remercier bu baax baax di la sant bu baax baax di la wax nag à très bien oyof rek. oyofal ko rek waaw dala oyofal ko rek ayca merci beaucoup très bonne soirée muy Ibou Laye Binom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax li may wax rek moom it borom baax la waaye ñu lay remercier bu baax a baax yow sama xarit nga maag yow dañoo yàgg macha allah waaye it <laughs> ndeysaan tey dama kontaan tey moom li ma naan diine diine de gala bi sama yëf la maa ko moom parce que ñi ma gëj a gis rek laa fi gis macha allah waaye it yéen a ko jaral Ndiaga Dièye sama xarit sama doomu ndey maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Jojo maa lay ziar yow soo taxee yow may

tey dama kontaan ba dama xamul sax lu may wax parce que samay nit rek tey jii nga bokk ci organisation bi lan nga ñu mën a wax. waaw tey damay kontaan ndax tey boo am nag nit mu am benn wax la ko man pour ma ne am naa idée la ma ne ko man jëru ma yëgal ne ma kaay dem dafay jóg ànd si ndax sa yëf Thiès kaw waa Sénégal wuyu si damay bég quoi ndaxte saal bi bu kenn nit nekkoon rek ak man muy ñàkk dama fiy toog parce que bu ma ko mel nii damay kontaan waaw vraiment lu mel nii daal amul ko amul Thiès quoi lu mel nii amul am daal loolu tënul mag ñi quoi te boo xoolee public bi nekk nga ay kilifa fi ay borom kër fi toog si kàddu leen amul pareegul Thiès. waaw. en tout cas tey moom Thiès moo aaye. wax tey Thiès moo aaye. tey Sénégal yëpp xam nañ ne Thiès moo aaye. te ki aaye bu Fouta la. bu polygame la joué. def ay preuve am ñëpp xam ko. xam bu mu dégg te ñu bëri ko. mu jàng na droit la jàng. xam na la mooy droit. mu professeur la université. mais déroute mu ngi jàngale beneen muy sa télé bi wane Sénégal mii mooy dund bi. ku baax ni nga war a def ku bon ni nga war a mu ñëw taxaw loo xam ne dafa jàppale seen li na ni seenu Sénégal amuñu formation mu ni moom tey day taxaw loo xam ne leen si leen former leen yoon. loolu loolu dafa am solo ñun ñun rek la soxla ku ñu accompagner ku ñu jàppale parce que instant bii Sénégal fi mu toll soxla na bu baax a baax yaa ngi gis xale yaa ngi dem ci mbënd bi ñii ñi ngi jaar ci yoonu suuf xale yaa ngi dem lu ne te lu waral loolu ñàkk ku leen jàppale rek bëgg taral yaay bëgg taral papa macha allah. mais irrigation xoolal xale yi dem si gaal yi. du question dara de te dañoo xam ne tamit seen bët fële la ko teg mais tey bu amee ku ne yow teg leen si ñoom rek dinañ toog liggéey seen réew ndax réew jàmm ngay liggéey kon fi nga teg nga war a jàppale pour mu dem keneen ñëw bi liggéey mais tey vraiment kontaan sama xol fa set quoi sama xol fa set trop ak yow taxaw ak yow xamal may kontaan damay fekk te ku ma baax ak ku ma baax ku ma xoolee jooja Kumba ba léegi Kumba Lawbe la. waaw Kumba Lawbe la. Kumba Lawbe. Kumba Ruxu Jéegi. Coumba Lawbe ñu ngi koy nuyu bu baax a baax en tout cas Ndiaga Dièye merci beaucoup ñu ngi lay remercier bu baax a naa ni seka bi fële di nga def lu dara jarul waaw bëgg naa gis tey pooj bi doo ma ñamal doo <laughs> ñu remercier la bu baax noonu ñoo ànd ak ma Tine monsieur Tine nag moom moo représenté vite fait vite fait ku ko xam-xam ko ci produit yu baax en tout cas man moom damay nelaw ba yandoor ndax vite fait te masala khat duma rey xet bu neex lay génne te damay nelaw ba yandoor yo duma mat dara duma sonal kon bok monsieur Tine maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax di kontan ci dalal la sama plateau Assalamualaikum wa rahmatullah ngi len di nuyu di len ziara di sawar bok ak yéen jitaay bu melni di partager ak yéen sen dine de gala bi nga xamne ne deug yalla euh aw nañu am nañu yéene bokk ak yéen dîner de gala bi ndax ndax groupe euh, polygamie bi nga xamne dañu nek seeni partenaire yo xamne manam yag na te and bi dafa rafet te dañuy wax rek euh, produit produit bu baax dafa neex a publicité daanaa leen wax ben instant ne leen nag sama produit vite fait bo len koy publier man dama len publicité wa kon nag dafa melni and ànd bu doon ànd depuis ba 2019 ba léegi ñu ngi and ak ñom ci seen liggéey di ñuy wone ci yalla tax ñu ñëw ci seen guddigi pour ñëw and ak ñom accompagner len guddigi yépp rafet dal lool mo indi fi ah j'espère que ni ngi len dé accompagner du yem tay rek. déedéet ñun mom ñun ak ñom ba gey gi fer ndax xam nga huit fee mom dafa nekk produit bo xamni ni produit sénégalais la té produit national la fi mu ñun nak ay doomu Sénégal la yo xamni ne ni ñoo xool li nga xamni ni mom mom la suñu waré soxla ñu dem kéré ko mais ci kaw kéré ba bu ñu ko kéré itam dañu nekk ay professionnel ba paré xamne lepp loy def rek manam bo nekké professionnel balaa nga koy def di nga ci xalaat li nga xamne ni mom la doon sénégalais di joy nga fexé bo mu am ci biir produit bi kon nag ñun dañu produit bi dañ ko kiimé ne 309 mo dañ leen defal produit bo xamne 8 fee la bu dé ci côté touray bi day xéñ parfum ñu liggéey ko matière sandal ba paré mu continuer di ray ay yo encore nga xamne ni nii daanaka yow mën nga ko utiliser sa biir néeg du manam say dom di nelaw ci sa biir néeg nga diko tal du la soj du la def dara kon comme ñu ngi koy jaay nag bi des années sénégalais gis nañ seen bopp te kenn mosu ñu ne soj na ma wala sax indi na ma problème donc c' est le mais man xam nga lan moo ma ci gën a neex euh, frotte vite fait bi waaw xam nga dama màggetee ndaw yenn saa yi sama yaram bi nege nege rek ma daa di koy jël rek am na ma def ak moom te su ma ko ci diwee rek tubaarkàlla du yàgg dara mu daal di sedd en vite fait dafa wuyu waaw loolu moom xam nga boo xoolee sax côté côté fraude boobu ngay wax ñun ñun dañ koo préparé ba nga xam ne ñun ñëpp lañ ci nekkal gis nga màgget yi nga xam ne nii la plupart ci nawet bi seddaay bi ñëwee seen i articulation yi day xaw a métti ñu am ay ay yaram yu day métti wala di ruux ñooñu moom ñun ñooy seen i docteur waaye tam xale yu góor yi nga xam ne dañoo bëgg sport ñi nga xam ne ci terrain yi lañ ñu ngi football ak di doorante ay tànk ñooñu itam dañ leen defal ay ay pompe spéciale xam ne nii pompe bu atomiseur la boo xam ne nii day pénétrer ci sa ci sa biir yaram directement nga xam doo fi nekk di a bëgg di defar ba mu baax seen yaram yi dafa sensible dañ leen defar ay type yoo xam ne nii base bi sel la day sedd ba pare di la faj te sa yaram du def dara waaw ñun kon dañoo polyvalent ñun ñëpp lañ fi nekkal en tout cas vite fait daal donc fuñ ko xaar daal dinañu fa fekk incha allah jërëjëf noo gisee tey jii soirée bi. waaw soirée bi soirée bi ñun ñu ko gisee mooy kontaan si parce que tey même dafa déplacé wu ñëw ci jotaay bi te mun naa ne c'est la première fois mu génn daanaka du ñëw ci jotaay bi kon xëy fi mu teg waa polygamie la ak Bou Kounta mi nga xam ne xëy na moo indi initiative bi te itam mu partagé ko ak ñun. ne kat ñun comme di liggéey ñun man ak waa Witwe ba egsi ci bés ni ki tey dañoo war a di trop nag ñoo ànd ak moom bés bi fexe jàppale ko si jëmmal bés bi ba nga xam ne nii boo liggéey dina am courage def bu gën a rëy di la bàyyi nga daal di dem rejoindre sa table di la wax euh, bonne soirée en tout cas fi macha allah euh, vite fait mi noonu moom am na lépp daal su ma ko naree lim du ma fi jóge tey waaye vite fait tubaarkàlla moom am na lépp macha allah euh, ñu ngi koy remercier bu baax a baax euh, di ko wax bonne soirée en di xaaraat yeneen invité yi nga xamante ni rek ku fi mën a jaar rek nga jaar fi su ko defee rek ñu daal di waxtaan ci guddi gi.